auzu billahi mina shaytaani rajim auzu billahi mina shaytaani rajim laa hawla walaa quwwata illaa billahi aliyil asiim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad ak i te di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi ngeen liggéey te dal koo def bu yàgg du ngeen ci tàyyi du ngeen ci toqi saa sune su bis bi ñëwee ngeen dagg seen yitte yépp boole seen alal ak li ngeen man lépp ngeen def ko ci bis bi loolu sëriñ muudu mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ baaba gis na ko yëg na ko xam na ko kon sunu borom bi nga xam ne moo nu boole bind te am ak pay yal na leen fay ngën gi pay yal na yàlla aaral leen seen ak ndaw ba ngeen yegg ci seen ak mag yal na yàlla dàqal leen seytaane te nooyalal leen seeni xol ba lii ngeen di liggéey ngeen man koo jëme ca kanam am na nu ci rafet njorot am na nu ci yaakaar bu baax a baax ndax am ngeen ci pas-pas am ngeen ci yéene kon noo ngi ñaan ci borom bi tabaraka a taala yàlla dool leen kàttan doon leen kaaraange goog sëy ak baatin ñi ne ci biir réew mi ñi ne ci bitim réew ñépp xam na nañu seen pas-pas xam nañu seen yéene lu jëmale dëkk bi kanam lu ko yokk lu ko taaral ci ngeen di dox ci ngeen di wax muy guddi muy bëccëg loolu it sëriñ Muudu xam na ko ndax saa yu ma jógee fii fekk ko Tuuba Làmbaay day bala ma bu ma ko nuyoo ba noppi li ma koy jëkk a wax seen seen aajo laa koy jëkk a wax door cee teg sama joj njaboot gi ak wér lañu soxla yàgg fi kaaraange mu ne ma saa yu ma jàngee alxuraan ba noppi yéene naa ci ñëpp rawaate na nag ma ne ko ñoom njaboot googu nga xam ne ñoom laa joboote waaye nag nañu góor góoru ci ak jaamu yàlla ndax fii ngeen toll de ndaw ci la sunu borom ba gën a bëgg seen ak jaamu yàlla ci leen àdduna bëgg ci leen saytaane bëgg kon wëlbatiku leen ci sunu borom mi nga xam ne di nga boo léegi moo amee sunu yërmande moo amee sunu lépp nu taalal ko sunuy loxo ni mënu sante nuy jaamu seen kem kattan sunu ko defee ba dina am yërmande fii dina mucc ëllëg noo ngi leen di sant bu baax no mi ngi leen di gërëm bu baax mi ngi leen di ñaanal lépp lu ngeen aajowoo ci saayir ak ci baatin lu xéewal sori sori yàlla na leen ko ñoddil ba ngeen jot ci man cee jariñu jariñe ci ci barkeb Seex Muntaxa mi nga xam ne mooy sunu bunt ci sëñ Touba moo fi nekkali sëñ Touba kon noo ngi ñaan moom it mu yàgg fi sëriñ Muudu yàgg fi nu yàgg ci seen gannaaw yàlla dëbb nu kàttan gu nu a ànd ñoom di liggéey ban li ñu yéene liggéey sëñ Touba sëriñ Muudu li yéene ko ci dëkk bi yéene ko ngeen liggéeyal ko sëñ Baba nu ànd ak ñoom ba lu ci bari sottee ci seen kanam ndax dañuy gunge rek waaye kenn du yegg waaye nag noo ngi ñaan sunu boroom li ñu simb li ci ëpp lépp yal na yegg ci seen kanam ñu door fee bàyyikoo ko noo ngi leen di sant góor jigéen mag ndaw fu fi waaye mën a bàyyi ko ci xabla yi fasantoo noo ngi leen di ñaanal yàlla tànk yi ñu ñëwee tànk yi ñuy delloo lépp yal na ko sama boroom def tuyaab yéen daayira bii nag li ma leen di dolli fii ngeen jublu fi la fii ngeen teg seen tànk fi la bu leen geesoo bu ngeen geesoo di ngeen taxaw te ko taxaw dootoo dem kon fi ngeen jublu fi la fi ngeen teg seen tànk fi la del doon leen boole seen bopp fi di liwaat laxasaay lépp lu ngeen aajo woo dey mëndiir am na ko fàggul nanu ko te lu mu sori sori sori bu ngeen ko soxlaa nii ngeen def delluwu ci ginnaaw lépp di ngeen ci jot lam manoon ceeg njaal benn ba ngeen di tàmbali armeel yi daaru salaam ngoolaan yële lu waaye tàmbali te ma fekk ma fi dana yegg loolee dara dindiw ku tàmbaliwu nag doo yeggal lépp lu waaye soxla daal na ko simbu te talal sa loxo yàlla bu neexee sunu borom dana yegg kon na ngeen góorlu bu baax tey góorgóorlu ci jàmm yàlla di rafetal bokk gi te déglu ndigalal kilifa yi lu ngeen ci man ngeen jafe ko mooy seeni tere su ngeen ko defee fu ngeen bëgg àgg di ngeen fa àgg kon noo ngi leen di satt bu baax di gërëb bu baax lépp lu ngeen simb noo ngi ñaan ci barkeb Mandir Fabo yi barkeb sëriñ Muuru mi fi nekk ak sëriñ bi seex moom moom bu mën taxaa yàlla leen ko saa jàpp leen ba def ko ni ko bëggee ci sayt ak ci baatin yàlla defal nu jàmm ci biir réew mi ak bitim réew noo ngi leen di sant bu baax wax ji eh, dafa mënul ñàkk waaye daanaka lépp baax na ndax tàyyiwu leen toqiwu leen yaatal ngeen bokk yi yaatal ngeen gan ñi fam ngeen seeni lal jox leen fam ngeen seeni alal def ay ñam teral leen lépp nag ki ngeen koy defar jal na ko ndax sëriñ baaba day làmb tuut dañu ko ne fii la mu tibb ba doyal tibb bi mu ko tibbee it ab toqantal la bàyyi fii waaye la cay njariñ ëllëg dana ko dencal ndax wax na ci gémmiñam ba tàyyi nu jàkkaarloo nii ma jàkkaarloo yéen mu ne àdduma taxumaa jóg kon nag foofee nu fa lépp abe njariñ kon li mënu xolal fii nan ci jàpp góor góorgóoru ci te sant ko te di ko ñaan yàlla doo li koy leer fa mu nekk ak mboolem ña mu fa nekkal ci barke yonent bi barke Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne cërëm bi mu am moo ko tiil ba mu jot ci yal yàlla feenu Sëriñ Tuubaa yal yàlla feenu sëñ Touba kon noo ngi ñaan ci barkeeb Mandir Fabooy yal na yàlla sàmm leen ci saayir ak ci baatin lépp lu di ay xéewal lu mu sori sori te ngeen soxla ko yal na ko ñoddi teg ko ci seen loxo ngeen mën koo jariñoo ak mbooleem jullit yi jër ngeen a jëf yal na ko teewaat na nga ni si déwén te kenn bañ cee manqué yàlla mën na ko yomb na ko yal na ko defal noo ngi sant góor jigéen mag ndaw ku yeewoo ci dëkk bi noo ngi lay sant noo lay gërëm sëriñ Muudu it mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm su mënoon a toog fii tey moo fiy toog waaye nag sunu borom maywut day able kàttan gi ak taar bi kon bu nun ñii nga xam ne dégg am noo fi toog fii bu nekk di itam ka saalika naka noonu fekk noo ngi dund dara weegut ci dund kon nanu góor ci ak jaamu yàlla tey xaj yi jigéen ñi yar gone yi moo noy dimbali moo nuy jariñ mooy jariñ ndaw ñi kon góor góorgóorlu ci ak jàmm yàlla bu baax boole suñuy xol muy benn suñu ko defee lépp lu nu soxla dinañu fekk fii ndax borom fàggu na ko bàyyi na ko kon nag nan góorlu bu baax jërë génne jëf jërë génne jëf yàlla mi amee ko yàlla leen fay yàlla leen sa borom gunge sàmma leen seen ak ndaw ba génn yàgg ci seen ak mag yàlla may leen lu leen noppal te nu ànd ci yéen as def lu bari ci barkeb Cheikh Mountakha jërë géen a jëf waaqola defana an alhamdulilahi rabbil alamin tàll leen loxo yi rahmaani rahim waaye nekk na tàll say wax amin rahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin inna rabbakum huwa llaahu lazii khalaqa as-samaawaati wal arda fii sittati ayyaamin summa istawaa alaa al-'arsh يغشى ليلا نهارا يطلبه أسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله وخلقه ولم تبارك رب العالمين وإن يكاد الذين كفروا لا يسبقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولوا إنه لمجنون وهو ذكر عليهم قال الشيخ الخديم كتبت في البر السخيا خالصة حسن الذي سقالي وانسقى بكن بكن سرمدا وجه المسيري يا سيوف الفرا للورى مثل المال يا ملك الملك يا من جار ارحم ارحم mujj gu rafet fan gudd waa dëgg yërmande dëgg mu ca kàllaaxira yar na ko sàmm ba mu. ma taw suuxi la. jërë ngeen